di chef religieux wàllu yàlla nekk foofu nag ca ginnaaw euh, euh, cité suprême ñu koy nuyu di nuyu tamit kilifa diina aada yëpp ñu dem seeti Karim Wade ak la pénitentiaire euh, des sources périphériques. na nga def pénitentiaire gi moom a ñëwul fii de. pour couloir bi la ma mën a kii doo taxawee la hmm. racité s'en vont c'est vite bonne mère chanter chanson. à chanter à chanter la voyance de Paris et mes gris-gris sont chantés. sama maam di sama maam di waxoon ne ma cosaan ak aada fu ne lay am ku gëmul sëriñ sëriñ gëm ko yow takk moom loi bi taxewu ko ku sëriñ gëmul gëm sëriñ te am na téere yoo xam ne boo ko sole kenn du la gis jigéen boo bëgg waxal di nga wax ak moom ci nii waa na le loi bi moom aayewul takk téere ndax cat ak làmmiñ ñëpp la topp Eh, eh, eh, kii doo ko fi taqee sa téere yi xaw ma foo leen jëlee ngay mel ni mbër nii man kay mbax laa parce que dañ ma jàpp ne ma ràpp ci kaso bi su ma génnee bëri lii lii lii de sa mbokk tubaab yi seen karaw yi xanaa dañ ko ëwalee sama gàllaaj boobu xam nga pour lan la lii man gàllaaj ci daf ma mën a téye lii est-ce xam ne kii boo ma xasee balaa dag may bëgg ba àddina du tukki yow ma bëgg la wala ma bañ la ba àddina du tukki te yëg naa li nga def parce que dama ñaan pour ñu affecté la nga dee lànk ne doo dem. Ah, ma dee lànk nga siisu. yow wéroo amu fi bu dangay fekkee ne jàpp ma di ma gardé su ma génnee dama lay jox dara tous laa la dul jox parce que yoruma tous. jigéen bu baaxee dëgg bu amee fukki at ak juróom-ñeent war a xam ku mu bëgg ak ku ko bañ waaye na leen ngi taxaw rek amoo far kenn se siw la loolu jigéen boobu war na xool boppam jigéen day xiis jigéen day xiis. man sopp naa jigéen ñi nekk ci sa de coiffure jigéen ñi waaye tamit góor bu jub moom kenn du ko ne ràpp si kaso bi tëj ko. Eh, boobu ba léegi maa ko wax. bu ma waxati góor bu juboon kenn du la tëj si kaso bi boobu ba léegi. est-ce xam nga ne yow bés bu ma njëkkee def outrage à yaay tax. du ma sa morom wax naa ne. sama sa morom te man sinjili du ma wax. mu teg ci baat morom yu jaune yooyu noonu la. ak say tànk yu weex gis nga billaay ak li ma yaakaar ak Touba Tiwaawan ak Mbacke ak sëriñ yëpp mooy tuma jamono gandi yow da ngaa gëm Touba ak Tiwaawan xoolal Karim man dama feebar taluma ay bëreeg ay leneen kay wax la dafa nank am na ko taxaw fii dugal ci biir sa tànkuy gàtt yi dugal ci biir lii moo la neex ci man man moom boo fi naree bëri damay dem parce que man tey dama feebar taluma wax démb laa la fi indi certificat médical yow ko ëppal nga yow sa feebar bi dafa commencé bëgg nag yàgg di bul lijjanti loolu dugal rek dugal àddina amul solo dugal. bul ma def nii waa dugal. ginnaaw boo xeesee ko dugul. waa dugal rek. ginnaaw boo Karim dugal rek kay ma wax la. eh dugal ba pare. te ma wax affaire bu neex kay. kay eh, ma laal de ma. pénitentiaire pénitentiaire ma dugal. dinaa dugg dugal. kay ma wax la kay kay ma dee li ma nar a def kay. kaay wax la ndax man maa jël war a jëluma kay. yaa jël loolu moom jarul la wax yow mii la nga ne ma xooj du. jigéen daal bu baaxee day am far. waaye jigéen bu amul far waaye de góor baax ñëpp a ngi seen ginnaaw jabari tëdd yow nga toog. i i i xar ñëwal. ñëwal. ñëwal. fii. li ngay fudd ni di ma ko dóor am na leneen lu ko gënoon am na lu gënoon. yow i man nga koy ñamal man nga koy ñamal man nga koy ñamal ñëw leen ñu ngi may mu ngi may sàkku ñëw leen mu ngi may ñëw leen ñëw leen prisonniers yi eh, bul ma ko ñamal bul bul ma ko ñamal